waa coalition Diomaye Président ak ñoo xam ne tam nekkuñu ci coalition Diomaye Président coalition Diomaye Président à travers la président de la conférence des leaders madame la président Aïda Mbodj ak ñu nekk ci biir ñëpp leaders yëpp yu fa ne di leen remercier parce que tamit gis nañ seen présence ci liste bi et également nongul nañ ñu lu Pastef damee ci bannière am majorité donc di remercier ñëpp di leen jaaj euh, notament ñoo xam ne tànn nañ leen mun nañ ci citer mun nañ ci citer également Mohamed Sall du MRDS mun nañ ci citer Marème Mbacké Kouloum Dioum ak ñoom Ami Mara donc ñooñu ñëpp ñoo ngi ci liste bi également di jëmmal alliés yi ci liste bi te bon mu doon liste boo xam ne également reflet wu jaspora parce que jaspora tam ñu ñu war a tànn tànn nañ leen dans les huit circonscriptions. on fait preuve de dépassement on fait preuve de don de pour la patrie alliés yi également. ñu ñoom itam gëm nañu projet bi et wane nañu tamit lu ëpp solo du c'est pas les personnes mais investiture yi gis nañu list bi déposé nañ ko jiital ci tout naturellement le président Ousmane Sonko nga xam ne liste naturelle nga xam ne en deux mille vingt deux moo jiite woon liste bi mais ñu fi ne woon nguur gi Macky Sall ak ay nitam si seen pexe fexe ba génne ko ci liste bi annuler suñu liste des titulaires donc tout logiquement moom nañu jiital comme tête de liste nationale donc nga xam ne il tout la légitimité pour la victoire est certaine, la victoire est acquise. Par rapport également à cette liste-là, opposition bi jaaxle na tiit nañu ragal nañu ñoom nee nañu daal bëgguñoo dem ak élection ak Ousmane Sonko parce que en deux mille vingt deux élection législative def nañu indi nañu pexe yëpp pour bloquer ko ba supprimer suñu liste des titulaires en deux mille vingt quatre élection présidentielle yi pexe yu ñu amoon yëpp génnee nañ ko pour bloquer candidature am à l' élection présidentielle. mu battre leen à plate couture au premier tour avec cinquante quatre virgule vingt huit pour cent des suffrages. neex na puisque malgré lépp lu ñu def Pastef yegg si na pouvoir Pastef fal na président de la république premier Ousmane Sonko nekk premier ministre ñu ne ñoom tam ils vont persister dans la bêtise ils vont persister ak seeni manipulation ñu ne également déposé waat nañu recours pour ne dañuy invalider la candidature du président Ousmane Sonko loolu war ñu ñun ñëpp daf parce que su ngeen di fàttaliku président Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ni il est électeur éligible parce que le 24 mars 2024 il a bel et bien voté mu am un casier judiciaire en bonne et due am carte d'identité en bonne et due forme dossier am complet weesu loolu ñu gis ni y a des décisions de justice yoo xam ne prononcé nañ ko en sa faveur maanaam justice moo wax ñuy rappelé wu décision bu juge Racine Thion ba nga xam ne moo topp ci juge Sabassy Faye anéantir lu ñuy woowee contumace te ñoo ñoo ko njëkk anéantir parce que contumace soo ko arrêté contumace ba jeex na yaakaar naa ne yooyu duñ ci delluwaat parce que sénégalais yi leeral nañ leen loolu comprendre nañu maanaam procédure yooyu ba léegi tey ñëpp ay procédures yee nañu wala ay pénaliste nañu Sénégal parce que maîtriser nañu dossier boobu ñu jóge ci loolu ñu ñëwaat seen bopp kenn laaju leen dara ñu indi loi d'amnistie bëgg ñoo ne dañ ñuy neexal ne ñun nekkoon député à l'Assemblée nationale pour ñu voter ko mais buñ ñu neewee loi d'amnistie bi day couvrir ay crimes de sang ñu ne ñun loolu mënuñ cee ànd parce que loolu c'est un scandale ñoom seen bopp ñoo ne loi d'amnistie boobu ku mel ni Ousmane Sonko loi d'amnistie bi couvrir na ko ak keneen ak keneen euh, Bassirou Diomaye fe ak ñëpp ñu nga xam ne woon maanaam événement yu amoon entre deux mille vingt et un et deux mille vingt quatre ñoom ñoo ko waxal seen bopp déggul nañu ay Tall Sall à l'Assemblée nationale dégg nañu président Macky Sall son discours à la nation donc loolu yëpp ñëw yegg si fii mais au lieu ñuy gàttal maanaam seen gàcce ñu bëgg cee continuer mu wane ni ñii dañoo jaaxle ñii parewuñu ñii bëggu ñoo dem élection parce que bu président de la république bu mu jëlee décret convoqué saisiroon nañu conseil constitutionnel ne conseil constitutionnel annulé décret bi parce que ñoom parewuñu bëggu ñoo dem élection mais président lu mu def yëpp daf ko wékk ci constitution article 87 de la constitution parce que balaa moo tànn date sax balaa moo dissoudre assemblée nationale saisiroon na conseil constitutionnel ba conseil constitutionnel jox ko xalaatam loolu su amee ba président saisir conseil constitutionnel jël décret am sur la base de lu ko conseil constitutionnel wax soo gisee ñu dem opposant yooyu dem saisiraat conseil constitutionnel pour ne conseil constitutionnel na annuler décret bi dafa mel ne dañu ne conseil constitutionnel na weddi boppam donc loolu amul sens amul njëriñ yaakaar naa dañu nekk di tardel seen bopp nekk dans la manipulation donc lu ñu gën a jaaxal mooy tey alliance bu nga xam ne alliance contre nature la du ma ne entre PDS ak APR parce que ñu bëre PDS nangu wuñ ko désolidariser wu nañ am na ñoo xam ne sax daf nañ seen liste du ma ne APR parce que ñu bëre nekk APR nangu wuñu alliance contre nature boobu coalition contre nature boobu mais alliance contre nature la ñoom ñoo doon accuser maanaam recours tappalekat la recours campagne bi ak pré campagne bi sensibiliser suñu candidat yi nga xam ne au président Bassirou Diomaye Faye au gouvernement à l'Assemblée nationale pour que ñu représenté fa sénégalais yi mu bañ a nekk assemblée nationale u Amadou Mame Diop mu nekk assemblée nationale bu bees boo xam ne ah duñ fa fekk ay ñoom sama collègue Abdou Mbow moom xam naa dina delluwaat si journalisme bi parce que gis naa fu ñu ko sànni si liste nationale bi xaw na sore te du ñu am loolu mais mu doon assemblée nationale boo xam ne day refléter sénégalais yi lu ñu bëgg ay débat de qualité ñu fay wax problème mu sénégalais yi mais ñu bàyyi tappale yeeg caaxaan yi ñu fay def ak yëfu baana baana ñu fay def donc ñun loolu nañu wax ne recours bi yaakaar naa ne jox nañ ko suñu avocat yi yaakaar naa buñ ko gisee sax dañu ree ñoom maître Bamba si ak yeneen avocat yi nañ ci tontu te conseil constitutionnel dina diir la droit incha allah mais moo tax sax man ma tardé parce que sànq la ma conseil constitutionnel woo ne ma am am nañ conseil constitutionnel fonne lu nekk la ñu ne ñu euh, yenn waa wa recours bi. donc Karim Wade Macky Sall moo ko déposé waat wane ni ñii dañoo tiit ñii dañoo jaaxle ñu yaakaar ni lu nee nañuy wax ñu ne ñun suñu liste des suppléants paritaire ul maay maanaam liste ba respect